non plus con que Cheikh Yérim tu quoi Cheikh Yérim nee na ñoom Diomaye ak Sonko gars yi ne war a comprendre parce que mosuñu diriger benn section mosuñu nekk ministre mosuñu am sa secrétaire quoi donc bu ñu nekkee ay président ak ministre dañu nekk ay kii quoi loolu dañuy am ay difficulté quoi wala Cheikh Yérim man dama lay laaj George Weah ba muy nekk président libéral ban kan moo mës a nekk secrétaire am il fut un joueur de football pare rek gars yi jox ko ah mu gérer libéral ba pare am élégance nag ne deux mandats lay def plus élégant que ñu naan tey jii am nañ ay secrétaire nekk nañ président assemblée Issa Fil ñëw jàpp seen peuple Issa Fil en otage naan damay da ngeen koy ñaan si jekk du ma ne wii du ma ne non ay des milliers de sénégalais dee ci ñaan ñooñu koy tànn Joseph Weah ëppul grandeur Macky Sall moom noonu ah tey jii Lula Lula mi nekk ouvrier fële Brésil ba mu faloo euh, Brésil ban président moo def plus que Lula est ce que mës na am secrétaire te ñi fi jóge nii pour remplacer leen day yomba parce que ñi dañoo teele seen askan boo jëlee maanaam tey jii benn benn ambulant bu gore mën na suul Ablaye Wade mën na suul Macky Sall mën na suul Abdou Diouf parce que dañu yorul woon Sénégal ci ngor seen askan dañ jël teyle ko beneen may wax mooy Tunkara moom nee na président Diomaye tubéy bi dafa gudd affaire man vraiment su ma dee naxara ma rey quoi yow bi Macky di mel ni PPK di sol ay ngan ah parce que da defoon ministre du conseil nga toog pale léegi robinet yi tëj ne demaat nga télé naan ay ko amoo dara loo xasee rek da nga policier bu ñëw rek maanaam tey ji bëgg a jàpp nit mënoo ko jàpp bu mu bëggee jàpp euh, chauffeur bi xool xam ne lépp normal mu ne ko noo da ngaa saa yi wax leen lu am solo li ngeen def amul njariñ tunkara robinet yi tëj na muñal tu fais l'hypocrite quoi ah ministre conseil dootoo ko doon fii jub jubanti boo jubee